tout d'abord euh, maa ngi leen di nuyu di leen fay bu baax di nuyu waa xibaaru équipe bi yëpp commencé ko ci directeur bi di dudu di leen nuyu yéen tamit euh, man c'est vrai que dama nekk ci sit internet di ci liggéey di ci def ay chronique di def ay émission yëpp euh, ma commencé di suivre actualité politique nu muy doxee ci Sénégal doolee ko tamit si Sénégal de l'extérieur yi nu ñu daan dundee parce que dama gisoon ay jafe-jafe ñu daan dund ñuy daan jiite daan daan si gëmm seen bët loolu moom ma gën a dugal sax man ci ci mbir mi parce que ba ma koy commencé yaakaar naa ni euh, ñëpp déggoon nañ fi jamonoy Barsax wala Barsaq ñooñu jeunes yooyu ñoom ñoo créé woon seen benn association euh, benn ONG joxal leen benn temps d'antenne ñu koy si benn rajo communautaire ñu woo ma pour ma leen di animer émission yu mel noonu di leen alertel so ci loolu nag ci laa dugg dem ba xam ne tey suñu problème yi yi ñuy dund yëpp politiciens ñoo leen koy teg loolu moo ma dugal ci mbirum politique ma koy ma koy di leen topp di génne parfois seen waxu démb parce que dañuy dañuy ay jikko kàkkatar la ñuy yor donc loolu moo ma ci dugal ma koy ma nekk ci tamit engagé wu dem ba benn instant ma xam ni euh, wàllu wàllu wax jeex na wàllu jëf moo moo jot. waaw euh, ñu bëri de yaakaar nañ am na benn incohérence bu ci nekk mais problème bu mooy. xam nga on est euh, euh, on est dans un état démocrate tey jii président de la république am na cinq pour cent yoo xamante ne faluñu ko te pourtant ba mu faloo dafa leen jiite ñoom ñëpp la boole jiite donc man suñu voté woon non ci la bokkoon ci référendum yi mais ba ñu dee ba wii bi gagné nag étant un démocrate da ngay nangu te ba mooy ba ma ne d'accord ma si dama si teg neen parce que dama ne woon mënu lu ñëw créer au conseil des sénégalais de l'extérieur nga xamante day nekk 100 membres boo xoolee tey euh, les sénégalais de l'extérieur ay cadre rek ñoo fa nekk secteur boo laal am na ay cadres yu fa nekk ñoo xam seen xel dafa nàcc di xalaat yu bari di xalaat jafe-jafe yi di trouver ay solution tey au conseil bu ñu ko tegoon mënoon na nekk benn liaison boo xam moom mooy euh, moom mooy yee la diaspora sénégalaise et gouvernement ba suñu jafe-jafe yi ko fay mën di étudier tey bu ñu xoolee euh, quinze députés yi tey député lan lan la war a mën a indil ci xeex parce que un député nekkul nekkul kuy exécuté lan la voté des lois contre l' action du gouvernement loolu rek la man dama xam ne su ma toogoon tey jii politiciens dinañ jël seen ay nit teg leen fa te bu ñu fa demee seen parti lañ fay nekkal man mi suma ma demee amu benn parti mu ma bokk ginaaru kenn nenu ma donc man dinaa gëm ni man dinaa liggéey teg ko sama aqulaa taala di fàttaliku kàddu maam Abdou Aziz yi mu waxoon ne bu ñu leen di projet de loi xool sa diggante ak borom xoolal sa diggante askan wi man loolu laa fas yéene doxee te loolu laa gëm te loolu yaay yaakaante loolu laa bëgg a yóbbu assemblée ba ñu fa indi fa benn rupture ak euh, ñi nga xam moom la ñu àndal muy defar Sénégal di nga xam Mamadou Sy Tounkara moom moo ko jiite. gàcce lañ ci am douzième législa douzième législature bi képp ku képp ku dul gis wala képp ku dul dégg sax xam na ñi ñii gàcce la ñu fa nekk nekkewum fa lu théâtre benn instant dama ne est-ce que assemblée mënuñ koon jël. yóbbu ko ñu continuer seen mandat di seen séance plénière yóbbu ko grand théâtre ba keroog seen mandat jeex parce que lii gàcce ci assemblée tey ku yeewoon ay Léopold Sédar Senghor dinañ kitaabu nu assemblée bi lañ fi bàyyi woon Mamadou Dia dinañ kitaabu ne assemblée bi lañ fi bàyyi woon donc dafa am benn gàcce boo xamante ne tey moom moom la ñu teg si kaw Sénégal parce que bu ñuy fàttaliku 2012 ñëpp lu ñu daan wax naan assemblée de rupture la fi benn député def boo xamante wi lu ñu lu ñu fa lu lu leen fa exécutif indi ñu mu passé comme par la poste am na yoo xamante ne dafa ñaaw boo fekkee nag ay député Macky Sall lañ wala ay député Massam wala Mademba loolu yaakaar naa ni ñu ngi trahir askan wi nga xam ñoom ñoo leen fa wóolu teg leen fa je pense que nag loolu yëpp ñàkk xam député ñàkk xam seen rôle moo tax mais bu ñu xamoon ni nu ñu éliré Macky Sall noonu lañ leen éliré kon séparation des pouvoirs bu ñuy wax ci Sénégal dinañ ko dëggal te ku nekk war a dem ak en toute indépendance assemblée muy muy comme opposition muy pouvoir kenn defoo seen seen rôle ñoom ay théâtre la ñuy def balaa ñoo def seen séance de bu di budde yooyu rek caméra yi fees fa ñu ne foofu di wax di tëb di dal di alors que defuñu lu ñu war a def assemblée nationale bu ñuy xool député yu bari yu bari bari bu fa caméra yi war defee wala ñu am lu ñuy def benn ñu lenn tey ji coow dina am ci la ñuy ñëw yëngal fa dem seen yoon man bu depuis tanque que député taxawul ne moom man maa di proposer de loi bii du ma ko rafet Barthélémy Dias moom damay rafetlu liggéeyam moom moom mi ngi def liggéeyam nu mu waree je pense que ne bu ñu amoon ay dix dix Barthélémy Dias ci biir assemblée woowu assemblée rupture bu ñuy wax doon nañ ko am bokkuma parti socialiste xaw ma ko mosuñoo gisante ma ak moom mais damaa gëm ni engagement bu nekk ci moom député yu bari bu su mu nekkoon loolu boobu engagement bu nekkoon ci ñoom nañu nañoo avancer mais assemblée bii moom gàcce la nañu gaaw rek abal ñu ñu jéem a indi indi indi indi de nouvelles têtes waaw euh, man par exemple sama bopp laa xam parce que bu fekkee dañ ne quinze lañ bon au lieu ma naan quinze sax dama naan quatorze lañ parce que Macky Sall ba mu demee Gambie bàyyi na fa benn donc quatorze moo ci des man li nga xamante ni dafa nekk sama priorité mooy au conseil bu ma la wax man su ma ñëwee wala bu ñu ñëwee du ñu décider de mais dinañu jëm waxtaan autorité yi proposer leen projet bi nga xamante ni moom la ñu am ba ñu ba je pense que bu ñu ko liiree wala ñu wala ñu dégluñu dinañu xam ne lii yenu na maanaa ñu si taxaw dinañu fexe tamit ba def rôle député rôle mooy lan contrôler l'action du gouvernement ministre bu ñu voté la ci sa budget année année prochaine nga ñëwaat ñu balaa ñu la votel dinañ am commission d'enquête parlementaire dërëm bu nekk 400 millions yu ñu la voté loon daaw dërëm bu nekk fu mu dugg dinañu ko xam parce que tamit Sénégal dafa yomb loolu ba ñu dégg Sénégal ba tey chaque année nga dégg benn ministre ñëw dig ñu àdduna ak àllaaxi àdduna ak lu ci yëpp ne laa ciy def te ba tey Sénégal tey la ñàkk gën a bari tey la tali yi gën a bon tey la oto yi gën a bon tey la nit ñi tey la santé bi gën feebar ak yeneen ak yeneen secteurs yu bari yoo xam mën nañ ko ci wax ana la ñu leen daa mos a voté yëpp 3000 milliards yi ñuy naxee na mooy budget mooy budget Sénégal fu muy dugg yu mel noonu il faut que ñu koy ñu koy ceytu ba muy ba muy ba ba nit ñi di xam fu muy dugg parce que Sénégalais yi il est temps ñu leen di ñu leen di informer beneen boo xamante ni mooy wàllum wàllum wàllum retraité yi nga xam dañoo nekk euh, bitim réew liggéey fa ba war a retraité war a ñibbisi te ku war a ku nekk am nga sa foo foo jóge bu ñu ñibbisee war nañ mën a toog fii euh, di mën a enquête di mën a fayeku seen i seen pension donc yu mel noonu France doon nañ si jox ay jéego waaye Italie euh, affaire bi tamit euh, yaakaar naa ni benn lu ñu bëgg la te lu wax dëgg yàlla am na yoo xam liggéeyu gouvernement la man dinaa jéem a nekk benn facilitateur entre la diaspora sénégalaise et l'état et les décideurs que ce soit mooy ministre ministre su notre ministère tutelle ak direction générale de Sénégal l'extérieur même ba ci fonds FAISE aussi dinañ dinañ fexe daal ak même ba ci douane aussi parce que Sénégal tamit am na ay jafe yu bari yoo xam ne seex nañ ko ak a dawal benn yërmande parce que bu président di def ay effort douane bi aussi si war a mën a jàppale mais bu fekkee lu ñu mayee fële douane bi nangoo ko fii loolu ça pose problème loolu dinañ si ñàkk jëm si waxtaan ak yeneen yeneen yeneen euh, jafe-jafe yoo xam ne Sénégal ñu ngi koy dund rawatina ñi nga xam ne dañ leen rey du mujj fenn yaa chaque jour xëy une semaine te déggu ñu amul ñaari Sénégal yu ñu rey du mujj fenn yooyu il faut que ñu koy ceetu di ko topp ba mu sës assurance de vie des aussi aussi ñu fexe ba jéem a xool ñàkk la nag la war a mën a liggéey ba Sénégal bu nekk nga mën a am assurance de vie 60 euros par année ñu xool naka lañ si war a mën a liggéey ak ñoom bon c'est c'est pas gratuit nag loolu la ñu loolu daal bëgg na bokk na suñu su suñu suñuy priorité ak Sénégal yi xam ne dañoo dëgg dañoo nekk ci kaso yi yàgg fa trop wu ñu leen yooyu tamit ñàkkul ñàkkul dinañ si di ren si ñëw ak ñoom xam nga ma dama wax naan une fois à l'Assemblée nationale c'est la fête de récréation de tous les consulats ou bien de certains consulats et et parce que bu ñuy xool euh, président Macky Sall ba mu ñëwee rupture man bu bu njëkk bu xaar foofu laa ko doon xaare dama doon xaar lu woon woon ni mais ba mu ñëwee dafa def pire que Abdoulaye Wade dafa jël ay militants euh, APR def leen ci consulat yi de ngeen fi fan yii Italie benn consulat ba dañ ko tëj ndax ngénte donc yu mel noonu tey jii ñoom day yàgg ñoom jàppee nañu sénégalais de l'extérieur rek mooy les militaires de APR ñoom ñooy les sénégalais de l'extérieur ñoom ñoo indi bodd benn bodd xonte entre ci ah, ah, ah, ci immigré yi toolu dafa nekk dafa ñaaw bu ñu la tegee si réew si dara bànqaas nga war ko jiite da nga war a yemale ñëpp mais consulat yi ma gis nii ay siège APR la may gën a nduru kay consulat général waaw parce que xam nga ñoom dañoo gëmloo woon ne ñu la patrie avant le parti mais malheureusement man gisuma loolu parce que bu ñu même parce que am na consulat yu yu ma fi gisee kenn ku ci nekk diplomate du kenn ku ci nekk am na ñoo xam ne dañoo yàgg liggéey ngir Sénégal extérieur te musu dara musu leen ci fekk musu ñi ci fayeeku dara tant boo gis ñuy dox da nga naan ñii kat ci jéego Sénégal extérieur la ñuy dem dañoo dem ba ku ci am problème sax ci ñooñu ngay dem parce que loolu loolu conseil affaire loolu lay xaw a nduroo quoi mooy taxawu sénégalais yi seen i jafe-jafe parce que loolu diplomate bi mën nañ ambassadeurs yooyu ñoom mën nañ ko gérer côté mais ñi nga xam dañoo yàgg sonn si si les sénégalais di leen xool seen di faj seen i jafe-jafe ñooñu lañ war a jël xool leen xaw waruñu si seet pas kii sama parti la bokk dama ko war a neexal ndax sonn na si man wala dara loolu bu ñu ko jiitalee rek ñi ngi ñi ngi indi benn division si ci sénégalais yi te consulat yi consul ma gis nii yëpp ñëm ñëpp nag amul kenn ko ci ñëm ñëpp parti à parti APR moo leen gënal que que que sénégalais yi fa nekk faale wuñu les sénégalais ku jafe da ngay gis ñoo xamante ne tey jii dañuy daw ay presque huit cent kilomètres pour wut benn pour wut carte wala pour wut euh, casier judiciaire ak euh, astafurlah dama juum pour wala pour mën a wut benn euh, carte consulaire mu nekk loo xam dafa ñaaw daan naa ko wax tamit te wax naa ko fàtte naa ko wax sànq il est temps ñu jëm informatiser suñuy dossier administratif tey Sénégal l'extérieur bu nekkee extérieur en deux clics war na mën a demander euh, son casier judiciaire en ligne wala wala extrait de naissance man mii Dakar laa nekk mënoon naa juddoo Matam su ma ko soxlaa damay damay obligé dem ba Matam pour mën fa wut sama extrait wala sama casier judiciaire loolu yaakaar naa ni euh, il faut que ñu def loolu pour ñu jéem a xam ni kat ñii gouvernement bi yëg na leen parce que laaj yu ñu dërëm tukki option la yooyu yaa choisi pour tukki kenn du tukki na a naa a ngay xaar sa nguur la xaalis wala dara soxla wuñ seen xaalis lu ñuy war a joxe xaalis ñuy fexe ba consulat bu nekk wala ambassade bu nekk ñu defa benn machine boo xamante ne heure bu sénégalais bi soxlaa renouveler passeport am mu dem jot ko si saas bi nga xam du am problème dafa am dëkk yu bari yoo xam seen séjour si passeport lay nekk te sa passe bu amee moins de six mois kenn du ko mën a renouveler kenn du la mën a renouveler sa séjour ñu bari ñàkk nañ seen séjour nax euh, ñàkk ndax jafe-jafe passeport talon yi donc yooyu mu jeex on est yoo xam ne daf dañ ko war a dépasser yooyu nag tant que defuñu jéego jéego yooyu sénégalais yi di sentir ni heure bu ñu soxla passeport am ko wala heure bu ñu soxlaa euh, loo xamante ne légalisation wala dara ñu defal leen ko saas bi du ñu sentir am nañu am nañu amélioration si seen si seen condition de vie si euh, gàttal daal sénégalais yi de l'extérieur dañoo soxla plus de considération waaw xam nga euh, peut-être loolu yéen lay bet mais man mënumaa bett parce que yàgg naa quand ak opposition yàgg naa suivre ak euh, politiciens yi surtout ndax ba mu ñëwee man la preuve nekk am na politiciens yu bari yoo xamante ne contacté nañ ma pour jéem a xool euh, naka lañ war a mën a liggéey ak ñoom mais man yàlla dafa def man euh, politiciens yi moom wax dëgg yàlla du ma ne nag wóolu ma ñëpp mais ñu si bari moom a ma yaakaar a ma yaa wóolu wóolu ma leen parce que ñoom seen bopp wóolante wuñ seen biir ku ci tëdd yaa ngi yaa ngi ragal gëmm sa ba nax sa morom jam la la preuve en est tey xoolal maa ngi kenn ku nekk yaa ngi doon dóor sa si suuf waxoo kenn dara yaa ngi récupérer say extrait say cas judiciaire di ko lijjeen suuf di préparer sa lépp kenn moo tax ba ba mu tasee 72 après ku nekk faral la xëy la euh, nekk préparé woon sa tour sax préparé woon nga ko da nga doon xaar affaire gi tas nga dem donc andu dafay andu dafay dëgg gis nga sénégalais sénégalais bugguñu injustice bugguñu ku ñuy tooñ euh, Omar Sarr bi tey nga xamante ne tey jii yaakaar naan cool yëpp si foofu la jógee ba ñu ne parce que la ñu bëgg a def tête de liste ñii ne Omar Sarr Dagana ñëpp xam nañ mooy borom 96 ba tey Omar Sarr mi ngi gagné Dagana rawatina bu ñu ñëwee tey opposition ñëw dooleel la loolu waxuma la kii mais à 80 pour cent sax mën nga la may xëccoon tête de liste nationale sénégalais bëgguñu ko ñuy tooñ Khalifa Sall moo si gënoon a jekk parce que tey la preuve ji bokk ba ñu ko tooñee dàq ko parti socialiste en 92 dafa dem euh, asa euh, élection législative yi mu am 10 xam 11 députés Moustapha Niass ñu dàq ko mu am mu ñëw élection 2000 de jël deuxième Idriss Seck mu jël 2007 jël deuxième Macky Sall loolu tey moo ko tey ci nguur gi Karim Wade sax 2012 kenn faale wu ko woon après ba ñu ko tëjee affaire yi commencé lëndëm tey xel sénégalais mu commencé dugg ci xolu sénégalais yi donc je pense que ni jamono jooju jamono ji Khalifa Sall si gënoon a jekk parce que Sénégal lu ñu xool programme amul kenn ku la mën a taxaw ne yoonu yokkute lii la woon wala euh, suqali bu mu Malick Gakou lii la kenn xamu ko donc loolu mooy dañuy xool contexte actuel bi ñu koy ñu koy dund Khalifa Sall bu même bu demoon tête de liste Dakar sax da parce que dina parce que dañuy sóoraale Sénégal du Dakar bu intérêt national jotee dañuy bàyyi intérêt personnel jéem a xool la xamoo leen mën a gagné parce que lii dinañ ko regretter après parce que Benno Siggil Sénégal ci 2012 lii moo leen yàqal Tanor Dieng Moustapha Niasse bu ñuy tasuloon tey seen ñaari voix mooy mooy raw Moussa mooy raw Macky bi kenn du ko wax tey jii dinañ def foo am 500 électeur la waaw Wattu am cent 150 waa Manko bi cent 150 euh, APR am 200 Benno Bokk Yaakaar am 200. mais ñoom ñooy gagné parce que majoritaire la raw gàddu la alors que ñoom bu ñu boole seen ñaari cent cinquante dañuy gagné après nag la ñuy xam la ñuy xool la ñuy xam les conséquences naan bu ñu yëgoon fekk raw na sénégalais yi nekk dañoo jëppi les politiciens euh, indépendant yi la sénégalais yi gëm preuve en est ko ba yaanamaar woote gisoo fa kaar gisoo fa dara ñëpp ñëw wuy si leen sol seen dégg ndigal na ko amul t-shirt bu noir sax dem nga jëndi ko loolu nag moo tax politiciens il est temps ñu xoolal seen bopp xoolal seen doxalin Sénégal indépendance ñoo ko yàq Côte d'Ivoire nekk na plus plus de huit ans ci guerre ñëw na ba rawaat ñu Sénégal di dem ñun ñu toog di xëy di wax rek tabaxuñu hôpital tabaxuñu école tabaxuñu université tali yi tali tali yi sax heureusement Abdoulaye Wade moo ko fi moo ko fi bàyyi woon sax mais boobu ba tey wax rek lañ fi nekkee. non du nekk du nekk défaite Khalifa Sall musul musul euh, bu ñuy xool Dakar Dakar la lay gën di gagné pourtant Idriss Seck mi ngi ni nekk jël nekk ci ginnaaw. parti démocratique Sénégal lu mu doon peser en 2012 est-ce que moom lay peser actuel xoolal ñu fa jógee parti bi yëpp 35 pour cent bi il faut ñu fàtte ko bu ñu bu ñu bu ñu bëggee di avancer parti bi Pape Diop jógee na fa Ousmane dem si ma yàlla Ousmane ma Seck Ndiaye ñoom Mamadou Seck ñoom euh, ñoom Thierno Thierno euh, ñoom ñoom Thierno Lo ak ñeneen ak ñeneen Souleymane Ndéné Ndiaye Modou Diagne Fada Aliou Sow ñoom Farba Senghor Pape Samba Mboup Aïda Mbodj sax tey nekkatul ci parti mën nañ wax. donc ñooñu boo ko foppa ngay jéem a xool ay 2012 lii laa war lii ku nekk Sénégal fii ku nekk xam na kan mooy kan par démocratie bu fekkoon amoon nañ doole keroog seen manifestation maa ngi wattu Sénégal boobu ñu ne def obélisque mënoon nañ ko na te teewul coow li coow li bu ñu xoolee am am moitié la mënoon na gën a fees man maa ngi fa am naa image yoo xam boo ko xoolee tey da ngay gis si gannaaw amul woon dara donc nañ il faut ñu waxante lu ñu waxante lu fi nekk kon donc ay waxu am doole fii te balaa ngaa mobiliser i jël ay njaga njaay fu nekk ñëw loolu day day pose problème man daal je pense que ni Khalifa Sall moo nekkoon personne idéale boo xam mënoon naa nekk tête de ñu topp ci ginnaawam parce que élection législative moom mooy primaire 2019 élection présidentielle fi mu nekk nii bés bu ñu leen fi dóoree dóor yi bu kenn dootul taxaw taxaw di waxu 2019 la ñuy gagné voilà am euh, def loo ay Abdourahmane Diouf nekkuñu si man je je pas comprendre tey une assemblée sans Thierno Bocoum nga xam si si mi la donc nekkatu réew mi mën nañ ko tuddee koñ bi. non loolu loolu loolu nekk loolu moom nekk parce que. lu ñu mën a wax tamit opposition bi yoon je pense pas que ni liggéey nañ fi loo xamante ne war na mën a jax tamit sénégalais jox leen jox jox leen benn benn confiance bi muy opposition muy muy benn bokk yaakaar kenn ku yeeg moom foofu moom kenn ku da nga jël sa yaakaar bokk ko la langal ko si ginnaaw si ginnaaw Macky xam ne tey jii PST bu demoonoo cëgal gu yëpp moom kase du du du am lépp dix député AFP moom dafa dee ba noppi donc ñëw dañ fa nekk Macky Sall kóllëre leen fa bàyyee mais ñoom ñëpp ñoom ñëpp a yem opposition comme ñoom ñëpp yem je pense pas que Euh, parce que dafa nekk yoo xamante ne euh, dañoo nekk mënuñoo ñoo jaaroo taal mënuñoo jaaroo taal parce que Sénégal léegi Sénégal amatul idéologie euh, politique da ngay gis bu njëkk da ngaa gis gëm-gëm Ablaye Wade ñëpp xam na c'est un libéral tey la preuve mi ngi ni ànd ak socialiste yi te pourtant libéral dañoo génn dañoo génn beru Mamadou Diop Decroix c'est un socialiste bu ñuy xool parce que âge yi ñëpp xam nañu ay parti socialisme donc dafa nekk loo xamante ne léegi contexte actuel moo laaj ni tey jii nit ñi kenn ko nekk sa intérêt ngay ngay ngay ngay ngay même bu ñu wax ay co cohabitation boobu ñuy wax lu nekk lu ñu euh, sax Sénégal parce que yaakaar lu ñu ñëw rek dara du baax parce lu ñu ñëw rek lu war a baax dañ koy bolo moom mais doo ko yéene réussir am loolu moo ko tey fi mu man gëm naa ni am na volonté ba tey pour liggéey Sénégal wala am na volonté pour jàppale Sénégal l'extérieur mais dafa am ñoo xamante ne bëgguñu comme la paix en Casamance am na ñoo xam bu ñu sañoon fam parce que ci ay bi ci la ñuy ma la exemple Euh, gaskatu bàmmeel bi kooku bu sañoon tey chaque jour mu am ku gas pour mën pour mën am lu mu yóbbu këram donc euh, il faut que daal ñu jéem a ñu ñu ñu a jiital intérêt Sénégal te bañ a te te te bàyyi tojante bopp yi parce que ñoom ñoom les ñoom la yàlla jox ñu yore suñu réew donc nañu yërëm askan wi parce que nguur gu la gën baax mooy nguur gu la gën a yërëm askanam opposition tamit nañuy def ko nañ ko def en lépp loo xam ne lu baax la muy njëriñ ñu xool si njëriñu Sénégal ñu taxaw jàppale si xam ne tamit wax sa baaxu moom du wàññi dara sa baax waaw dinañ ci am dara nag loolu moom lu ñu mën a wax te dinañ xam ni dinañ am dara parce que tamit euh, ñoom ñoo yor koppar bi nekk ni moom xam naa président sax bu affaire yi xawee ci dina wàcc sur le terrain ñoom ñoo yor xaalis bi parce que boo jëlee réew nga leen ba ñu xiif nit boo ko xiifalee ba mu xiif boo ko joxee junni mu topp la donc bu ñuy xool tey Sénégal yéen ñëpp gis ngeen ko côté social fi nekk di doo dox cinquante mètres te nit dogaale wala ne la ne la ne la may doomu ndax doomu may lu ma yóbbu kër ga da nga gis ñoo xam ne dañuy yor seen vax yu seen njëkk a jënd ñu bokk seen sac di ko a jaay pour mu am dépense bu ñu mën a taale ndogu donc nag kooku nag boo ko jëlee tey jox ko jox ko junni na ko votel dina la votel euh, euh, dina dinañu am dara nag parce que ñoom ñoo pouvoir moom wax dëgg yàlla opposition moom lan laay ragal man ñu ñàkk dara léegi nag comme ñoom ñaa ñoom kenn na am dara parce que ku nekk dama leen mosal tuuti ñu ni indépendant ñu ñëw ko moo de la fin euh, damay jéem a delloo ci xelu nit ñi xam ni président de la république dañ ko war a wormal man des fois damay wax samay dëgg yëpp mais kenn yaakaar naa mosul dégg ma jéem ko jàll baat tey am na benn ñu naan am na quatre jigéen quatre ndaw yoo xamante parce que xamu naa am na ci góor wala dara yoo xam ne leen jàpp pour euh, lu ñu wax nañ dañuy jël euh, président caricaturé ko mu nekk loo xam ne aussi du ñu ko rafetlu parce que tamit ñun dañoo am suñuy aada suñu suñuy cosaan bu leen nit daf la màggee benn fan sax da ko war a jox cër te man euh, lu nu mel gëw photo montage sax la ñu wax tey wax dëgg yàlla gis naa ko mais dafa nekk lu ñaaw loolu yaakaar naan képp ku nekk sa waajur wala dara doo fekk doo ko doo ko def te doo ko défendre donc loolu daal laa bëgg euh, président nag ñu jéem a euh, dawal yërmande te xam ni ci weeru koor lañ nekk fukki fan yi njëkk yi fukki fan yërmande la ñu jéem a dawal yërmande xam ne xale yi xelu xale moo leen topp ndax kenn ku toog sa kër ñu jékki yónnee la lu nu mel peut-être da ngay ñëw reetaan ay reetaan la lay def nga ne xaar ma yónnee ko diw jëlee ko ay kaf mais yaakaar naa loolu tamit dafa ëpp bu ñuy kaf nañu xool lu ñuy kafe man loolu ba ma ko jotee ku ma ko mosoon a yónnee yaa def na deux mois dama ko wax ma ne ko lii lu bés ni ko tey bu ma yónneetu lu mel nii bu leen yaakaar damay nekk di casser dama dama dama contre président wala dara man lépp lu may def pour Sénégal moo tax ma koy def donc euh, erreur la ndaw yi def dañ koy reconnaître di parce que tamit am na kenn koo xam ne si dafa bokk si ñun donc du ñu def lu jëm ko ñaanal euh, président de la République ñu ñu jëm leen a xam ni euh, ba ñu tëddee fu ñuy tëdd xalaat nañu bu boo xam ne ñoom lu ñuy def erreur la donc nag nit ki moom balaa nga kaa baal da ngay jëkk reconnaître sa erreur ba pare doo ko dem ñaan njekk donc nga ñee ñu baal leen ñu teggi leen loxo te xam na lu ni mel dootuñu ko defati ci barke weeru koor bi nga xam ci la ñu nekk te la ay ay ndaw lañ dañoo juum kaf la ñu ko jëlee woon affaire bu ëppul loxo te loolu kenn du ko kafe euh, borom njaboot la dafa am ay doom dafa am yëpp ku ko xool tamit du la neex donc loolu daal laa bëggoon a tëjee di wax aussi diaspora bi eh, di leen gërëm bu baax xam ni maa ngi ñëw waa Italie waa Espagne Portugal yi yëpp nañu ma xaar xam ni ñu ngi ñëw euh, commencé tàmbali liggéey bi euh, jéem a dem en attendant trente juillet jot ñu jël li nga xam moom la ñu moom fas yéene taxawu leen ci peccum ndaw réew ma maa ngi leen gërëm yéen waa xibaaru yëpp di leen encouragé gis nañ tamit euh, seen moyens yi ngeen fournir jamono ji seen loko yi gis nañ ko vraiment dañ leen ñaanal ci kaw ca kanam parce que ku ko jiite tamit noonu la mel. donc yéen ñi nga xam yéen la fi bàyyi yéen koy gérer euh, di ko teg si yoon dañ leen ñaanal yàlla ngeen dem ba ba ñuy gis xibaaru TV voilà jërë ngeen jëf.